kon président Macky Sall amul dara lu mu fi def ñuy wax ne fii muy sëriñ Abdoulaye Mbacke Gaynde Fatma muy Mame Khary Mbacke ñu leen wax ne askanu xaalis bi nga xamante ne moom ngeen jël muy xaalisu population bi ngeen jël. Mhm. di ko geree nit ñi. jël ko en plus di ko xeexee jàpp ne yéen yéen a mën jàpp ne yéen yéen la Macky Sall teg fii ñuy wax ne xaalis boobu nga xamante ne da ngeen koo sàcc ci askanu nit ñi yéen lañ bëgg a xam ne war ngeen am lu ngeen di jomb ndax ay taalibe Serigne Touba ñoo fi nekk ñu jàppoon ne yéen ay sëtu Serigne Touba ngeen ñu jàppoon ne yéen ay deretu Serigne Touba ngeen jàppoon ne ay ngor ngeen te loolu nekkul ci yéen dañoo bëgg nag ngeen xam ne réew mii dëkk bii di Touba réew mii di Sénégal jàmm rek lañ fi bëgg le président Macky Sall bu bëggee jàmm incha allahu rabbi na teg élection yi ci lu leer ndax le président sa Seck dina ko jël ci loxoom jël bu leer nañ